nañoo fexe ba lu mel nii ñenn ñu koy def ña fa gën a jege boole seen bopp ñoom ñëpp su fekkente ne yàlla dong moo leen ñor waris ak parparloo fat nit mënu koo def ñàkk def waaye parparloo mooy li baaxut ndax kenn ku nekk ci nun ñi boo xoolee am na kër gu mu gonte ñëw fii ci tànt bi kër yooyu bokkuñu kenn ku nekk da génn ci sa kër waaye nag am na lu ñu boole loo xamante ni moo tax ñu daje fii kon nun ñëpp nañu maase di roy ca loolee ñu def noo ngi ciy bëgg te di leen ci sant tey rafetlu seenu taxawaay di rafetlu seeni yitte di leen dénk te di ci jiital sama jëmm feew fii ngeen nekk nga xamante ni barab yu jaxasoo la kenn ku ci nekk nay bàyyi xel li nga xamante ni mooy ko fi indi muy jàng te njàng ma may lépp loo ci xamante ni culture keneen da cee nekk te dëppoo wut lislaam loolu yi ngeen bàyyi ko xel te lépp luy lislaam ngeen di ko sàmm ba réew moom yi ngeen nekk ni ñuy wattandikoo léeg-léeg réewu tubaab yi jullit ñi jàpp ni ñoom ay terroriste lañ raykatu nit lañ fitna la indi ci kaw suuf seen jikko ak seen melo ak seen doxin weddi loola ngeen nekk nitu jàmm réew moomu ngeen nekk lañu fa woote ci ay luwaay ngeen di sàmmoonte ak loola nekk nit ku am tolerance ci keneen koo xamante ni du ab jullit ndax nit ñi kat ñépp ñoo bokk ku dul ab jullit sax dang ko wara def ni sa bop cheikh mohammed al fadal bi nga xamanteni mi ngi jappale singor ci wote am na ño xamanteni dañ nako moone singor day du ab julit muy wote yu indi won lu tang ndax booba ci biir touba rek seigne fallu ni mu jàppalee am na ñeneen ño xamanteni ngi jappale lemin ngay ndax japp ni ab julit la ñi seigne fallu ki mi jappale ñu ni du julit ba am na ño xamanteni loola xëy amon na ci waye daf leen ko andil ci misal mu leer mom cheikh mahamadul fadal ne leen yeen ñi ku ci gisoon sama mbindum loxo nan ngay def ñu ne ko xana wormaal ko lool te fonk ko lool te japp ko lool mu ne leen singoor suñ borom ko bind mbindum suñu borom la loolu day jangale mo xamante ni mu xóota xóota xóot la mo xamni batay julit bu ne man nako jarino kon sa mbokum julit mo man di gis rek jappal ni suñ borom ko bind gannaaw sëñ Fallu yàllaa ko bind lam bind ci loxoom nga fonk ko jàpp ko rawatina la la nga xamante ni moom la suñ borom subhanahu wa taala bind kon loolee lu mat a la ba dana tax nit ki mën a am tolérance ki dut ab jullit sax man nga koo def ni sa bopp ndax la def la ab waaye kee nag moo bind loolu mën na gën a sax ci ku dut waaye même nature bi sax boo ko xoolee muy garab muy gàncax ba ci jur gi fas yeeg mbaam yeeg ba xar yeeg nag yeeg yépp war nga am ci ñoom yërmande war nga am ci ñoom ak ñeewantu ndax mbindee fi sunu borom lañ subhanahu wa taala ba ci sew yi dox melentaan yeeg sànq leen yeeg bëgg sukkar yi yëpp ndax mbindaa fa ne suñu borom lañ nga am ci ñoom yërmande ni nga xamante ni ki feeñ ci guddi gi loola doon jàngalee ne lépp loo xamante ni am res rek nday suñ borom ma nga ci ci fekkente ni yërëm nga loolee te yàlla rek tax kon li ngeen def bég nañ ci suñu xol sedd na ci am nañ ci mbégte moo xamante dem na daya noo ngi ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu defal leen tawfeex kenn ku nekk ci yéen la ko indi foofu yi ci njàngam yàlla defal ko ca ndam te defal ko ca barke waaye su ngeen ci jógee la tax ngeen doon jàng muy am liggéey bu ngeen mën a téye ragal yàlla man ci taxaw seeni wayjur man ci sutural seenu njabot yalla defal len ubbeeku defal len tawfiq defal len barke te defal len lu kawé seen njort di len wax nit noni ngeen def rek noni rek la ab julit ak morom ma mi ngi melni tabax gis nga ay mool ni ñu rangalo ba mën doon ab neek nga man ca dugg ñu dal ko mu fegal la naaj fegal la ngelaw fegal la taw julit ñu suñu bennoo noonu rek liñ bëgg lépp danañ ko am ndax su boba yërmaande dalé doon heure bu ñu teqali koy day daal di doon fitna kon ñu bayyi xel ni dañoo wara bëggante wara soppante wala wóolante te jëm yalla rek suñu borom bi subhanahu wa taala tax kon no ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen balu xaq te di leen bal xaq di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu yit jéggal te loolu ngeen defit ngeen wëy ci lépp loo xamante bis la jullit ñee ko ngeen fexe boole seen bopp te noonu suñu mbokki tijaan yi def ngeen jàpp ñoom it ñu jàpp bés ñu bàyyi lañu nekk ñëw fekk si leen su ëllëgee yéen tamit leneen luñ jàpp it yéen it ngeen lu ngeen jàppoon ngeen bàyyi ko te dem ànd ca ak ñoom loolu defe naa ne su ngeen ko defee ba mu nekk lu siiw dana tax mën naa law ci France gépp waaye it mën naa law ci yeneeni pays yi nga xamante ni ci Europe ba Amérique ba feneen waaye fii ci biir réew mi it loolu it mat na fee jàllale ndax yooyu yëpp boo ko xoolee mbir la moom mën na jeexital ci biir réew mi yëpp ndax su boobaat dana tax tiijaan yi ak morit yi ak ñeneen ñu tijaan ak morit ñu gën a boole seen bopp te xam ne li leen dajale mooy lislaam te mag ñu baax ñu nekkoon ci biir réew mi yëpp amu ci génn kër gooy dem te doo fekk mbindum morom ja muy wax ci mbokkam jullitam moomee lu baax di wax ci mbokkum jullitam moomee lu rafet boo demoon tey ci kër El Hadji Malick da nga fa fekk mbindum loxoom Serigne tubaa moo xamante ni lam ko cay wax lu rafet la lool ba dem daya waaye boo demoon ci kër Serigne Touba it fekk fa mbindum El Hadji Malick moo xamante ni lu rafet rek la doon wax ci Serigne tubaa noonu nga ciy fekk ci Cheikh Sahada Abihi noonu nga koy fekk ci ñaseen yi ak ñim fi bokkandoo la nekk ñëpp seen bëgg-bëgg ak seen yitte lenn rek la woon mooy kaweel baatu sunu borom nit ñu mën a jariñu mën a gëm yàlla mën a yaakaar yàlla mën a wóolu yàlla mën a jaamu yàlla ci gën gaa rafeti ne anam ca na mu gën a sell kon li ngeen def nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla nit ñu bare bare bare war na nu cee roy loolu yëpp nag boo ko xoolee ni nga ko waxee léegi ci maam Abdul Aziz yi ku ne xam ne noonu ma ko waxee ni ngan googu mu doon def ci Serigne Saliou yëmut ci loolu waaye daana gane gi sëriñ Abdul Xaadir ba ngan goo gi ñëpp defe naa ni dañ koy teewlu kon aw doxinam ba ci sëñ mu Cheikh Mouhamadou Moustapha sax gis nga dem gam ca demal ba góor sax woolu ko mu ne ko ndax labbe ba fële ak labbe ba fee bu ko bu ci dewoon seeti morom ma da nga ca woo kenn naan ko loo wuti woon ca labbe bee loolu lépp lépp lépp koo xam lislaam jaraloon na ko lu ne kon woow doxeen julit ñu wax dëgg yàlla war nañ ci yoroy xam ne mbaax daal suñu borom daf ko yaatal kër boo dem rek da nga fa fekk ay tànneef loolu la yàlla dogal ndax ñi nga xamante ne alaaj ëpp du ñëpp xam nañu baaxam muy murit muy tiijaan muy leneen lu moom ba ci kut eh, ab chrétien sax loolee kon lees war a roy la kon noonu ngeen def yàlla na leen ci sa borom saxal te saytaane mi nga xam ni bëggut benn yoon julit ñi ànd bëggut benn yoon waxuma la sax ñi ñee féete ca gee kër wala ñeneen féete bu sañoon sax ñu bokk génn kër sax dañuy féewaloo te duñ ànd mukk rawatina nag ay ñoo xamante ni ñoom ñëpp ay julli lañ waaye yàlla dogal na bokkut fu ñuy ta bokkunu fu ñuy jànge waaye njàng mi li mi lépp lenn la kon seytaane moom yàlla nañu ci sa borom musal yàlla nañu sa borom aar yàlla nañu sa borom defal tawfeex ak sutura kon na àggale waxtaan wi ci ñi nga xamante ni ñoo ngi teewlu fii ci baas bi kon bokki jullit yi ñoon ñu suñu bokki jullit lañ yoo xamante dañ doon dugg dégg ngeen niñ ko waxtaane léegi bokk yu am yitte lañ bokk yu am pas-pas lañ bokk yu bëgg lu baax lañ maa ngi santaat yàlla bu baax nag man ci saa wàllu bopp ci suturaam sim suturaal ak tawfeex ji mu nu defal ko ci sant cant ko am na fu mu tàmbali waaye amut fu mu yem ndax daaira bobu mel na ni ay ata ni mat yetti at wala yent saa sunu dajee sunu jàngee alxuraan jàng xasida ba noppi kàddu yi lañuy teg di ko dénkante ci seen biir te sunu borom dogal na sax musunu maa gis ba yàlla dogal sunu njaboot dem fa yoonam yu njëkk ñëwee dañ ñu ko dañoo bëggoon sëriñ bi ñëw fi sarsi yep yi ñokay jël ma ne leen nag xëy na sunu borom dogalu ko ci non ndax saa su ko dogalee duñ ko bañ waye nag japp guñ ko loolu daawla won ba li ni barki dembu warna tollu ci yaari semaine ba nopi am ku ma ca wo ci ñom jaare ko ci malik sek mom sunu nek fofu li tax may sante yalla nit man na gis lool sunu borom man na koo bañ a dëggal boo gisee gént da ca am gént yoo xam ne day mel ni loola suñu borom di wan la fatxu la ndax kookee ba ma wooy dañuy ma sëriñ bi dama gént bokki tiijaani ak bokki muri di daje ci génn guddi bi ñu dajee di jàng alxuraan ak xasiida nga dugg ci téléphone woote soññ nu soññ boo xam ne ñun ñëpp dañoo dellu ci yàlla li bi mu ko génteeg net li ma ko légui tollu na ci fukki fan ak juroom defe na né dem dem dem mat nako sax ma ne ko ah, yàlla ko yalla dëgal xam nga man nako ko tay ñew duma ko fekk man nako ko tay ñew né ñu dajee ko dajé kon loolu da fay melni ak sante la bu baax melna ni nak yu mel non mom lim ci def mom suñu borom ñi jaxasoo ngon xeyna dara nga ko yoy dañu bëgg diko waxtane waaye ko noo ngi sant yàlla bi mu ko dëggalee ndax ba nga ko waxee dama ne ko noo ngi ñaan suñu borom ni nga ko génte mu dëggale ko noonu kon suñu borom dëggal na noonu yàlla na nu saa borom yàggal te may nu wér te defal nu tawfiq te defal nu it sutura ndax nun ni ñu koy waxee waxtu ne jàmbu doy di lañ ba àgg ca lool te xeebu it ba ci lool yàlla rek moo bari sutura di nu suturaal di nu nëbbal suñuy ayib rek kon guddi gi ni ñu ko waxee sànq bi ñuy tàmbali mooy judd gi nga xamante ni gën gi mbindéef ci la feeñe boo gisee nag ñu di ko màggal du caagee ni màggaluk ñëw daje rek def ay bernde xéewlu ba suñu xol sedd ci sunu biir waaye liñ ci war a jàngate mooy lim nu indil nu jàpp ko te fas ko yéene jëfe te jëm yàlla rek tax loola nag mooy lislaam ndax nit ki kat ni ngay berndeele sa roo sa sa sa sa biir nu ko raw nga war a berndeele sa roo boo gisee yiñ ci deele yépp ñu di ko deele ci bis bi mooy ki ko dundal dundal goo xamante ni danañu mën a fàttali ki kii mooy kan lim indi woon mooy lan li mu indi woon mooy njub ndax fekkoon na jamono lëndëm këriis mu leeral ko ba mu leer nañ fekkoon na xeet wu ne jàpp ni moo gën morom ma arab jàpp ni moo gën xajam ci biir araab yi giir yi ci boppam giiri araab yi giir gu ne jàpp ni moo gën morom ma ci am-am wala ci alal walla ci juddu koo kii mooy ki nga xamante ni mooy ki ñëw benn la xeet wépp wax ne arab gënul kurut arab arab gënul hajam hajam gënul arab waye nit ñepp ñi ngi gënantee ci ragal yalla mu ñëwoon fekk yi li wax ak njaam am ñi di mom ñi ñi du not ñi mu ni sang bi ben rek la moy sunu borom subhanahu wa taala ñu ci dess ñepp ay jaam lañu lolé mu jangalé won na ngir ben la wi dafa nek lo xamanteni luñu wara dundat la luñu soxla wat la aada mu dindi ko ba mu set wicc andi loo xamante ni mooy buumu mucc di buumu texe di buumu am ngërëmal sunu borom loolee kon lañu war a dund ci bis bi kenn ku ci nekk ci noonu aada jam jàpp te loole dëppawut ak lislaam mu man koo wacc te jàpp li nga xamante ni moom la ngën gi mbindeef indi te mu gane àdduna ci bis bii ndax neewal na kat kenn ci yéen ak ngëmam du mat ndare bu dafa jiital li ma indi bàyyi la nga xamante ni moo doonoon aaday démb ak josaanay démbam loolu yi nekk loo xayte luñ ci war a jànge la ba kenn ku nekk ci ñun su fi jógee aw doxinam ak waxinam mu di ko tënk ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi te bañ koo tënk ci aada wala ci weneen doxin wu bokkut ak ni nga xamante ni noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee loolu kon dalay jox kon dalay tegtal dëgg dëgg sellal nga xamante boo demee ci bayi Bayyina aaye juróom suñ borom dafa wax ne ma leen lu ngeen jaamu ma te sellal jaamu ga nekk way nooy koo xamante ni soxal bépp yàlla rek moo ciy nekk say kaddu yàlla rek nga ciy tudd say melokaan ak say jëf lépp day dëppoog la suñ borom bi su wa taala gërëm ngay taxawal julli di natt asaka loolu mooy diine ji nga xamante ni mooy ju jub xocc muy yoon wi nga xamante ni moom la waxoon feneen ni lii mooy sama yoon wi jub na ngeen ko topp te bañ a topp ñal yi ñal yi nag boo koy xool mooy yeneen yi nga xamante ni mooy sunuy aada yu dëppawut ak lislaam te bari na ñooñ ba tey ñu ngi téye seen aada yooyu téyin woo xamante ni moo gën a dër ni nga xamante ni noonu lañu téye lislaam te li tax nag ku ne ci noonu mën a mucc mën a texe man a am ngërmal yàlla mooy mu fexe ba teg ne la ay aadaam te ni nga xamante ni noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale mu fas ko yéene jëfe te jëmm yàlla rekk tax boo xoolee yonent yi njëkkoon yépp benn baat lañ doon wax mooy wéetal yàlla te ragal ko ragal yàlla mooy nekk ci lim digle te teet li mu tere lu mu dogal ci yow nga gërëm ko boo xoolee yonent yépp loolu lañ doon jàngale loolu war na tax nun ñëpp nu bàyyiwaat xel loolu bu baax kenn ku nekk bi muy dugg ci lislaam bañ a dugg ci lislaam rekk ngir ni kat ah lislaam diine ju réy la wala fi ma dëkke ay jullit rekk a fi nekk lislaam a fi not wala gis ci benn njariñ wala benn intérêt boo xamante moo la ci tax di dugg déedéet waaye ndax jëf jooy mën di jëf la nga ca ak ci yéene rek moom la ca suñu borom bi subhaanahu wa taala di jàpp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ndax boo seetloo julit ñi bi ni gàddaay jóge madinatul munawara jëm makkat jóge makkatal mukaram jëm madinatul munawara am na ñoo xamante ni dañ doon ngoronte ak soxna soxna sa yàlla dogal mu gàddaay dem madina ay way juram gàddaay wala ñam nekkal gàddaay dem madina nga xamante ni ñoom bi ñuy gàddaay naan dañoo jëm madina wuñ ca gàddaay googee lenn lu may ne ah soxna bëggoon naa ko léegi nag gàddaay na kon ngir ma man caa jot faaw ma gàddaay dem madina kon kooke gàddaayut ngir ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dem madinatul munawara ngir kaweel baatu yàlla ànd ak moom ci dëgg ànd ak moom ci njub gi mu indi war koo tasaare ci kaw suuf muy xet ñi xeet wépp di njariñal xeet wépp ku ci jàpp doo réer ba faww te gindiku nga gindiku nga xam ne dootu àndateeku réer mooy tax nit ki suy dugg ci lislaam yéene ju sell na ko ci dugal te jëm yàlla rek tax boo ci duggee ba noppiit kuréel boo ci mën di féete booy tànn naan man am murit lay doon bul ni ah morit kat léegi mooy kuriir bi ëpp doole ñoo gën a rafetu dëkk ñoo gën a rafet jumaa nga xamante ni ci nga koy teg yëpp ci aada lay doon waaye da nga koo war a teg ci gindee ci gindeeku gumat sëkk ak rafetal gu sëkk dugg ci ngir lan ne man day am naa tawati xol am naa ràggi xol ràggi xol ak tawati xol mooy lan rëy mi ngi fees dell ci man añaan mi ngi fees dell ci man ngistal mi ngi fees dell ci man wax lu du dëgg mi ngi fees dell ci man li nga xamante ni ki gane àdduna ci guddi gii loolu la doon jàngale nga gis nii fee day loolee na nga ko fay jàngale jàngale gu mat sëkk te raxuñ ca dara te loolu dong mooy sama yitte waaye leneen lu man di doon du ca doon sa yitte su ko defee nga mën a tënku ca loola mën a jàpp ca loola moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xamante ni dafa gàddaay ngir yàlla akub yonentam kooke day na xam ne yàlla gis na ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam gis na ko te dana am seen ngërëm waaye képp koo xam da ngaa gàddaay ngir adduna joo bëgg a jot wala nga gàddaay ngir addu soxna soo bëgg a takk kooko moom lam gàddaay jëm rek loola dong la am muy soxna sa mbëgg wala leneen la nga xamante ni yitte war ko ci doxalinu addunaam kon li nu war a def nun ñépp mooy bàyyiwaat xel ci ki feeñ ci guddi gi loolu mu doon jàngale ne kenn du gën morom ma ci lu dut ak ragal yàlla loolu nag kenn ku nekk ci nun war na cee jihaat ak bakkanam ba fas yéene mu nekk lu dëggu fas yéene mu nekk lu wér ci moom ba nga xamante ni tey suñ jóge woon ci jataay bii su la nit bëggee jëfloo aada joo xamante ni dëppawut ak diine lislaam nga mën a woon gannaaw loola ak loola lu mu tar tar tar boo seetloo sëriñ Tuubaa li muy bi muy jàngale ab sëriñ ñu mu war a mel loolu wax ni man talabal wusula li jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutian la yamin bi an yulaasima mutian la yamin fi zahirin wa batinin xani yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki haada ki nga xamante ni da lay wommat ci xam ak jëfe te yàlla rek tax waaye daf lay yarit nga génn ci lépp loo xamante ni aada loolu lépp nag boo ko seetloo aada yi sëriñ bi doon daw léegi moo fees dell ci noonu ndax bari na kat ñoo xam ni bu ñuy dox ci biir yoon wi bu dee ci ay xew la la ci ëpp ci sa aada ci ngay tënku waaye doo ko tege ci ci lislaam ba ci sax bu fekkonte ne nit ñi fas fas fas fas ab sëy rek tey gis nga ni ci aada dugge duggin woo xeet yi dem na dayo te loolu tey soo ko bëggoon a génn tey ci réew mi lu ne lu ne man caa xew te bari na ci ñoo xamante ni kat yonent bi dafa jàngale woon ni ku ñëw ñaan leen soxna te ngeen gërëm diineem ak jikkoom na ngeen ko may nit da dana ñëw am diine ju mat sëkk am jikko ju mat sëkk nga teg yoo wax yonent bi teg fee ne ah waaye kat xeet sàngam la bokk waaye kat giir sàngam la bokk te ñooñu daw ñu leen may soxna moo ne yonent bi waxut lool de kon yooyu lañ war a gën a jihaat ak suñu bakkan te kilifa yi ñi nga xamante ni ñoom la ñu gën jox nit ñi boobu cër boo xoolee Serigne Touba noonu yonent bi benn le woon xeet wi noonu la leen doon benn le yaa ngi dégg sëñ Moussa di wax naan Mbàkke gëyut gënut ci moom guyaar nekkoon ummi Mbàkke taar bi kaar kenn du ko may Serigne guyaar soxna ummi Mbàkke doomu Serigne bi la woon léegi mooy ak taar bi kaar ba di ko kaaru sax ngir rafet bu mu rafetoon sëriñ bi kam ko mayoon bokkut ak woon dara ci ci ci ci ci ci ci askanu Mbàkke wala ci askanu Musóobe kon loolu lépp mu doon wane ni Mbàkke gënut ci moom goyaar maanaam ku sant Mbàkke ak ku santu Mbàkke ñoo yemoon ci moom képp ñëpp da leen a njaboote moom loolee nekk lu mat a bàyyiwaat xel te yi nga xamante nit ñi ñu ngi koy def li ëpp solo tey fii ne daanaka ku doon mayee daanaka da ngay seet ku am alal ngay seet ku oomal ngay seet ak yu mel noonu déedéet nit ki li nga war a gën a xool mooy jikko ak diine ndax yaar yi mooy ku nit ku am diine am jikko ju rafet néewaana mu ñàkk sutura faw yàlla di ko am ba géejal moom yàlla koy jagleel ku ko soob waaye sutura moom ñaare borom diine dana koy am ak boroom jikko ju rafet kon loolu yi mu nekk loo xamante ni lu ñu war a bàyyiwaat xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi feeñ ci guddi gi bokk na ci li mu doon jàngale mooy ni sunu borom du xool sunu yaram muy du xool sunu jëm ci kaw rek du xoolit sunuy melo ci kaw rek waaye sunu borom sunuy xol lay xool ak sunuy jëf kon ni ñuy taarale sunu néeg ni ñuy taarale sunu salon ba nga xamante ni boo soñoon gan ga nga gën a fonk su ñëwee nga defar sab salon ba mu rafet nga dalal ko ca su génne naa diw saalam bi rafet na lool defar sa neeg bam ni boy la ca aju ci ay meubal yépp nga def ko ca ñu ne ah diw day neegam ba rafet na lool diw de xanaa gisoo neegam ba nam ko defere lalam ba day bantub sangam la di ko yéem ak a naw lool ci taar photo yi mi day wir la di ko naw lool boo génnee it fexe ba sangu ba set wicc sol sa yére yu set wicc génn ñu ne ah diw day mbasee bam sol diw day yére bam sol déedéet waaye noonu ngay xëntewoo di defar sa kër gii mu baax te kër gi yàgg yàgg da ngay xëy ñu génne la ko te dootoo fi dëkkeeti mukk salon bi yàgg yàgg da ngay xëy ñu génne la ko te dootoo ci toogati mukk néeg bi yàgg yàgg da ngay xëy ñu génne la ko moom itamit dootoo lal ba dootoo ci tëddati mukk yére bi lu mu rafet rafet rafet da ngay xëy ñu summi ko dootoo ko solati mukk sol la yére yoo xamante ni sax boo yeexee ci sa dund dawoo ko taamu ci sa sol bala ngay àgg foofu fexeel sa xol bii nga xamante ni ëllëg yawma laa yanfaxu maalun wala bannoona illa man ata bi qalbin salim yitte wool sa xol ba mu set wecc ci lépp lu sunu borom subhanahu wa taala gërëmut fexeel ba bul rëy mukk bul jàpp ni yaa gën kenn ci anam gu mu mën a doon fexeel ba bul añaane benn jullit lu mu am fexeel ba bul wax lu du dëgg fexeel ba bul njistal loolu yi jullit bi war a yittewoo da seet yàlla ni mu yàlla ni mu kawee yàlla ni mu selle sa mbokkum jaam rek jaral la ngay defar sa salon sa néeg sa kër sa sa col yàlla mi la bind moom nu melal nu kàttanal nu waxtu wu ne amut ca loola soxla moom sunu xol yii rek lay xool kon war nañuy fuglante ak moom tey xisaab sunu bopp ba sunu xol yi sunu borom du ko yër mu gis lu mu gënamut kon war nañuy góorgóorlu bu baax ba yàlla moom yi du xool sunuy xol te bindoon nu te moom nu te melal nu te kattanal nu ñuy rafetal sunu xol rafetal xol ndax xol moom la yàlla di xool ëllëg ni ma ko waxee léegi ëllëg kenn du mën a mucc te sa xol setut ci njistal setut ci rëy setut ci naw jëf setut ci añaan setut ci jëf bëgg ñu di ko tudd setut ci jëf di naw jëf ja jëf kon xol boo bii nañ fexe bala ñuy géntal àdduna fekk yooyu yëpp set na ci wicc bala ñuy wuy ji yàlla kon ni ngay xëy di defaraate sab saal xëy di defaraat sab néeg xëy di seetaat li ngay sol ba xam set naa surtout boo ko solee laal ci parfum ba tabarkàlla noonu nu ko raw fop nga war a wittu yittewoo sa xol bii nga xamante ni borom màgg gi borom kayawaay gi borom sell gi moom rek lay xool ci noonu muy sunu borom subhanahu wa ki feeñ ci guddi gi loolu la ñu doon jàngal. ki feeñ ci guddi gi bokk na ci li mu doon jàngale sunu boroom yu rafet yépp ak yu ñaaw yépp béral na ko ci téeram bu sell bi képp ku yittewoo lu rafet te jëfu ko sunu boroom dana ko bindal lu rafet loolee mu yéene te jëfu ko mu bindal ko ko aw yiwu mat sëkk bu fekkee yittewoo nga ko jëfe ko suñ borom bindal la ko fukk waaw benn nga jëf mu tegal la ci juróom-ñeent muy fukk du ca yam sax mën na koy ful ba juróom ñaari téeméer mën na koo ful sax lu gën a bari loolu dangay seet suñu borom ne mbaaxee bu ñu wax mbaax dëgg mooy sunu borom subhanahu wa taala yittewoo lu baax rek mu bindal la ko aw yiw nga jëf ko mu fulal la ko ba lu kenn mënta boo yittewoo lu ñaaw te jëfoo ko dalay bindal sax aw yiw moom seen borom subhaanahu wa taala seetal boo ko baax nga yittewoo ab safaan yàlla dimbali la ba jëfoo ko aw yiw la la cay dal di bindal soo ko yittewoo jëf ko benn safaan dong la lay bindal te boo ko jégguloo sax mu jéggal la ko ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam kon war nañu ubbi sunuy xol tey góorgóorlu bu baax ci aw yiw di ko yittewoo ak di ko jëf te yàlla rekk a tax bokk na ci ki feeñ ci guddi yi li mu doon jàngale mooy nit ki nangu ab dogal ci lépp lu yàlla dogal ci yow gis nga nit ki ni nga xamante ni tànnut fi muy juddoo kenn ku ci nekk dangay xëy xàmmee ni diw moom a jur ak diw bu la naqaree ñoo la jur bu la neexee ñoo la jur bu ñu melee na nga bëgg noo la jur bu ñu melee na la gënalut noo la jur tànnaloo ca sa bopp lenn la ca topp lépp noonu la mel ci yow lam lam la tànnalaat lépp noonu lay mel dara du ci jàdd moo tax yonent bi jàngale woon na ni sunu borom nit ki su fekkente ni nekk na tokk ndox dugg ci roxumo soxna si su fa amee ñeent fukki fan ba tey benn tokk boobu rek lay doon yeneen ñeent fukki fan mu nekk lu mu deret ba noonu noonu muy toftaloo ba nekk koo xamante ni boroomi cër laag yépp ba mat ba suñ boroom wal cee wol ab roox malayka mi wol roox gi yéenti baat yi dana ko bind te nam ko bind dara du ca randu muy lim nar a am ci kaw suuf ci wërsëg moo xam boroom alal ngay doon oto yi bu dee kuy war a am oto nga bu dee kuy war a am kër nga lim ba nga war a am ci xaalis lépp ci am amu àdduna nit ki bi mu nekkee ci biiru yaay biiru way juróom jigéen ci la suñ borom subhaanahu wa taala binde diw lii la war a am du ko romb mukk waaye digg bi nga xamante ni boo ci yeggee seconde du ci yokk seconde du ci wàññeeku foofu la ko suñ borom bi subhaanahu wa di binde ak na la la fiy jële ak nam la fiy jëlee ak ca lay fekk lépp da koy bind waaye it mbooleem say jëfit nit ki yëngutoom yépp yi mu war a yëngu ci kaw suuf di ko jëf ba ba keroog mi àgg ci diggam boobu bi nga xamante ni du randul toll ni day day we sun borom subhanahu wa taala foofu mu nekk ci biir way bu jigéen nit ci la koy binde waaye ku texee di la wala ku texe la it foofu la ko sun borom subhanahu wa taala di binde mooy tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ni kenn ci yéen danay jëf-jëf waa aljana ba digganteem ak aljana dara desu lu may xasab bii téere boobu suñ borom bindoon bi nga xamante ni mu ngi ci biir way juróom jigéen bu doonee ko texee di la suñ borom xiir ko ca jëf jo koy texee dil ngir bindoon na ko démb mu dem ca safaan ba wala iyaasu billaah waaye nit dana jëf-jëf waa safara ba xasab lu toll nii dox digganteem ak safara fekk suñu borom dafa bindoon ci moom muy kuy taxe mu jëf-jëf kuy taxe dem aljana muy xat muy wax boo xam ne ku ne war na koo bàyyi xel ndax nit ñi kat fi mu ne kenn ku ci nekk moo xam murid nga moo xam xaadir nga moo xam tijaan nga moo xam ci mouvement islamique boo mën a bokk léeg-léeg nga gis koo xamante ni day gis nit di def ab safaan rek mu ne kii day safara la jëm kii day bu ko yàlla jàppee yow dangay yàlla am na yaa moom safara lii yonent bi jàngale koo xamante ni jëf nga bu daanaka sa dund benn xasab moo la dese masalan tey ñaari fan wala ñetti fan sax nit mën na fee taxe benn wenn waxtu sax nit mën nit ki mën na koo dese ci kaw suuf mu texe fi wala mu texee def kon day mel ni jëf yépp ni mu ko jàngalee ba tey ca mujj gëla kursi bi kat nit ñi mën nañoo départandoo waaye teeru ba kat ca mujj gëla la mooy tax nit loo jub jub jub loo ragal ragal ragal yàlla loo maandu maandu maandu ah rafetalal xamoo foo jëm xamoo ci looy mujj kii nga bëgg a xeeb naan day day moy naan du def nangam naan du def nangam naan di warula la de xamoo fu ko yàlla jëm ëllëg bul gis sa jëf jii santal yàlla mi ne ci xiir loo baax baax baax loo jub jub jub bul xeeb kenn ndax naan day jëf lii wala day jëf laa nit dafa war a nekk nit ku maandu gis nga maandu ak rafetal yaari baat yu may faral di waxtaane waaye lu ma tax ba xel la maandu mooy nekkal ci li la war li la yàlla sant nekk ci ku ci nekkut maandul ca moom lu nit di mën di jëf maandu ca bu ca am soxla bul ca am yitte loolu la ab jullit war di def am na ñu koy faral di ku ko ñu koy faral di wax borom kër googu yi nga xamante ni dafa am soxnaam ak kuy liggéeyal soxna si boo doon firi tey boo doon firi tey maandu ak kenn ku ci nekk yem ci jëfam mu ñëw ne ko ah kii ñuy lëggéeyal ci kër gi de daa tollu diggante mu ne ko affaire am la soxna si ne ko yëg nga ni yow yaa ko def mu ne ko kooku de sama affaire la mu ne ko yëg nga ni kon man damay takk saay bagage génn kër gi mu ne kooku sa affaire la loolu fi mu ne ñëpp a koy dégg waaye njàngat mu xuur daf cee nit boo ko romboon muy man di bay tërëf maanaam boko gisone gisoon sa ñaar sa umu sa ñaari beut yi muy def naka ko sudul manu ca yalla nga koy gis man ko fajj ñeeni te def lolu moy ak manu deug koku nonu mu waxe lolu moy ak manu ndax kenn ku ci nek mbiram la kon nit ki bul dugg mukk ci mbirum jambo ci ay wax te legi nit ñu man ko may wo dem na dayo te ci bi de ki feen ci guddi gi jangale ne na ëllëg yow man xiyaam ñu nekk ci safaanuk aljana boo leen laajee lu leen fi indi wax duñ ko man waaye seen làmmiñ wi lañuy jàpp woon ne la moo ñu fa indi léegi nit ñi duñ wax luñ xam te duñ noppi dañ daan wax naa nit ñi duñ duñ duñu sos waaye luñ dégg mu siiw léegi dañuy sos ndax dangay doxee nen nit na boo yeexee de ma ko ma tax muy def nangama wala nangama tax boo yeexee jooju muy wax te njortu ko bu ko keneen déggee buy nettaliwaat danaan diw rey nangama tax muy def nangama loolu mooy li xew bis bu set nga dégg ñu sosal fi nit loo xamante ni kenn du ko mën a misaal nit ñi li ñu war a gën a def mooy yar seenu làmmiñ di wax loo xam loo xam sax léegi sax bari na lool sax boo ko xamee sax noppee gën noppi ak jekki ci jamonoom lañu toll ku ko wëttuwut day sa làmmiñ dana la dugal foofu doo fa mën a génne sa bopp te kenn du la fa génne kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci dig boobu nga xamante ni lépp suñ borom bind na ko ba nopi ta xamoo bo ca doon loolu dafa mata a baxel lool baxel boo xamante ni dem na doy ndax da nga gis kat koo xam ne danay jëf ab safaan di jëf ab safaan di jëf ab safaan waaye bu ñu la nettalee ak mujjam sa xel day daal dal ca moom sa njot day daal di rafet ca moom nga gis koo xamante ni mën naa ne ku jub mën naa nekk ku baax waaye bu ñu demee ba léeg-léeg nettali la ci mujjam dara sa ci mën na ñaaw moy tax julit bi nay rafet tam ci mbokkam julitam di wax lu xam di def lu mu xam ndax réere gi nga réere sa mujj danaa koy wax waxtu ne nit ki réere gi mu réere mujjam war na koo yar réere gi ko réere rek war naa doon am yar ci yow boo koy ndax fii mu ne nii ñu toll ñi ci ay tout tank yor seen ñaari bët di xoole na mu leen neex maa ngi koy wax ba tay waaye dama koy fàttali rek am nañu fi tolloon ñoo xam bi ñu toll ci ñaar fukki at ak fanweer ñu ngi yor seen bët yu neex waaye bi ñuy àgg juróom fukki at seeni bët muuru la ba gisatuñ dara am na ñoo xamante ni ñu ngi woon ak seeni tànk xëy na ñàkk seen tànk yooyu am na ci ñoo xamante ni tey ñu ngi woon ak seeni loxo xëy nañ ñàkk seen loxo yooyu nit ki réere ak mujjam xamoo kenn xamut ci looy mujj ñàkk gi nga ñàkk xam nag ci fooy mujj